bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Tuuba asalaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi noo ngi yëkkati kàddu ci ndigalul sëriñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif mi nga xam ne ndigal lii ñu doon ñu nekkoon bi mu jógee ci Cheikh Mountakha ñëw Cheikh Bachirou ci loxoom la ko teg mu jiite woon mboolem liggéey bi nam ko bëggee woon te waxee woon ko nag ca njëlbeenug liggéey bi bi ko sëñ bi yabalee ci mbooloo mi dajale woon na leen waxtaan ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi rawatina nag waa sëñ am mi nga xam ne moom la sëñ bi njëkk a teg liggéey bi ci loxoom waaye loolu sëñ Cheikh mii moo ci waxal boppam ak lu jëm sëñ Bas ñun ndigal li am ci wax ji rek mooy taalib yi nga xam ne sëriñ bi dafa yónnee woon ay ndaw ci ñoom di ay kër yu bari yu fasantikoo di ay ay taalibe sëñ Tuubaa mu waxoon leen liggéey bi ni ko sëñ bi waxee ñu tàmbali ko dimanche te daan ko miinoon koo tàmbali benn panu safar waaye sëñ Cheikh ca wax ja am na lu mu ñu waxoon dafa waxoon ne safar dañuy dañ koy fekki rek ndax liggéey bi du doon ñaar benn lay doon gannaaw sëñ bi dafa joxe ndigal ñu jëmbati garab te ñi mu ko jox mooy Baay Faal te njëkkoon leen sant liggéey bi dañuy ànd ak ñoom ca lañ nekk ñu dem defi ko ñun ñu nekk leen ci biir liggéey bi suñ nekk fekkaat ñu ñu ànd ñoom noonu ko sëñ Cheikh bëgge woon nag sëñ bi defee na ko nu ko raw njortal ne danañ ci yàgg lool waaye dëkk bi set na ci diggante bi oo xam ne ndimbalu sëñ bi rek na ko moo ko ci fekk waaye kon nii mu gaawee du ñu gaawee kon tey jii duñu fekk sax nuy dem bàq yi ndax moom jàppoon na ajjuma defoon la dem bàq waaye nag murit moom su déggee ndigal te am pas-pas day yomb ci moom kon sëñ Cheikh na moom mi ngi sant mboolem jëriñ yooyu nga xam ne ñoom la santoon liggéey bi ñu ànd koog waa yi ñu ñëw ànd ak ñoom ba bis ni ki tey bii tey jii ñu daje ci université bi nekk fii ci këru xasida gi mu toogal fi mboolem njabul sëñ tubaa gi waaye nekk mboolem seexi sëñ tubaa yi fi nekk yëpp mu ne mu toogal leen fi kon moom ci kàddoom mooy wax ci kàddu sëriñ bi li mu war a wax ak taal li mu war a wax ak mboolem bokkam yi nga xam ne ñoom la àndaloon liggéey bi cant ga ca sëñ ba ga ca sëñ ba war a wax ci sëñ seex mi lay lay jógee tàbbi ci mboolem julit yëpp waaye nun li nga xam ne moom la ñu sant daal mooy mboolem murid yi nga xam ne noog ñoom ñooyam doon ni taalibe te àndoon di liggéey liggéey bi sëñ seex nee na ci turu sëriñ bi sant na ñëpp bàyyiwu ci nag genn kër nam ko waxoon yu njëkk rek nam leen waxoon kër yi seex nam leen tudde woon ca njëlbeen ga ba liggéey a àgg nii yooy yooyu delluwaat na leen wax ne jërë ngeen jëf ndax ñoom ñëpp gis nañ ci liggéey bi ku ne sa ndaw ñëw na te loolu weesul lañ la ma waxoon ne bëgg mu yaatu rek ndax ñenn doo nga nañ ko def waaye yaatal gi nag dafa war a tax murit yëpp ku ne sa loxo dugg ci sëriñ baa ngi sant mboolem transporteur yi nga xam ne dafa yónnee woon ci ñoom ndaw ngir liggéey bi te ñoom kenn ku ci ne yebal otoom ba liggéey bi jeex ñoom ñëpp sëñ baa sant bu baax mi ngi sant itam mbooleem regroupement yi nga xam ne ñoo yor taxi ci tubaa ci garage yi te seen njiit di Papa sekk moom it mook ñam àndal ñëpp ñëw nañ ànd ak ñun ci liggéey bi waaye mi ngi santaan mbooleem regroupement bi nga xam ne ñoo yor oto yi nga xam ne dañuy manq ay wanag te ki ko ki ko yor ren ne ren la njëkk a yor bis bi dafa tase moom ñu fal ko muy président bi mu ñëw ne sëñ Cheikh jaayante na maa yéen fas na maa yéen ànd ak liggéey bi sëñ baa ngi sant itam bokki taalibe yoo xam ne ña nga ci bitim réew di liggéeyal sëñ bokk ci waa Daaru nam yónnee ci sëñ Moustapha Dieng mii ci biir liggéey bi ñu yónnee ko ñoom seen seen addiye danañ leen ko defal ci liggéey bi loolu kat li muy firi mooy kenn ku ci ne fa nga nekk la nga mën nga dem sax bi liggéey bi nga cee def la nga tollool mi ngi mi ngi sant itam sëñ aboom sëñ siidi bu baax a baax yónnee na yónnee na fi ay addiye moom it ay addiye yu ñu ko yónnee Italie sëñ aboom moom sëñ siidi yónnee indi fi addiye yoo xam ne Italie la jógee moom itam kon si daal mi ngi wax ne mi ngi sant borom sareet yi ndax ku dem bàqee tey gis nga ne sareet yi liggéey ba ñoo ko yoroon kon ñenn ñu ne lañ tollool bi leen ko sëñ bi santee def nañ ci lañ man daayira yi itam bayiwu ci benn rek regroupement yi bayiwu benn transporteur yi ak chauffeur yi nga xam ne ñoo yoroon oto itam ak seen président yi nga xam ne mooy Modou Habib Diop ak Gora Fall ñoom ñi nga xam ne ñoo seqoon regroupement yooyu yëpp ñoo ñëpp itam ànd nañ kook ñun liggéey bi jeex kon tamit daal nee na mi ngi sant ñëpp bàyyiwul kenn daayiri jigéen ñi nga xam ne ñoo ànd ak soxna Astu moom sëñ nga xam ne moom moom ànd liggéey bi nga xam ne fu mu ci nekk mu nekk fa ak ñoom ànd ko soxna Njóoba Mbàkke ak soxna Maam Isa ahlul café ñii nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba tey ñoo ko sëñ Cheikh ko ànd sëñ bi nee na mi ngi leen sant ñoom ñëpp kon nag na mu ko bëggee woon amee na ko ko fi yàlla yàggal te wéral ko naal yii mu naal tey ne ci biir naalam bi toog fi tey jii nii na naal bi àgg coleet mu naal yeneen naal yooyu àgg mu naal yeneen naal yooyu àgg te yàlla man na ko yàlla na ko yàlla defal yàlla ko fi yàlla bay te wéral ko te kattanal ko ba yéene ji mu am ci liggéeyal sëñ Tuubaa mu aragal ko mu ko bëggee ci barkeb sëñ Tuubaa noo ngi koy ñaal bu baax na ko murid yi yëpp ñaal sëñ Muntaxaa yàlla yàggal ko fi mooy sëñ Tuubaa de te sëñ Tuubaa kon sëñ Muntaxaa mooy sëñ Tuubaa yàlla na ko fi yàlla kon sëñ bi noo gërëm ñëpp di sant mbooleem seex yi genn kër nag bàyyi ko dama leen ko waxoon nag ne leen kenn ku ci ne ci nun ñii ne dañuy tudd tudd ay a tudd ko mën a na nga xam ne kenn ku donn la nga ca moom ka dem na ka ko njëkkoon moom sax nekkatu fi muy lawte lawte ba agsi ci yow te yow yaa ci ëppale sax ka ko njëkkoon a yor ndax koko sonnoon na ci dara yow nag sonnoo rek kon bu sëñ bi wootee ko fal ko war a xam te ñun sëñ Touba nu fal keneen falunu keneen doonul ci ñun dara ku du sëñ Touba barke sëñ Touba kenn doon ci ñun dara sëñ Touba a doon kon gannaaw lu man sëñ Touba la nun dañoo war a déglu ndigal rek anu war murid yi waruñoo am beneen bëgg bu dul sëñ Touba sëñ Muntaxa kat li mu bëgg nu xam ko mooy sëñ Touba la bëgg nu xam ko rek ndax wóor na ko ne bu ñu xamee sëñ Touba danañ jariñ ndax ku xam sëñ Touba jariñu kon yàlla li ma ko waxoon na ko yàlla nag nu xamal sëñ Touba ban mën a jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon ñu jox sëñ sëñ Ndaam Sooda moom sëñ Ahmadou Modou Mbenda mi nga xam ne moo fi ñëw toogaay fi toogaay Baay Faal yëpp bisimilahi sëñ bi bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi ni teewlu yëpp si turu sëriñam Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima di ñaan yàlla sunu borom yàggal ak dundam ak ak di jottali nuyoo bu bàyyi si moom jëm si jëwriñam ji Cheikh Modou Mountakha waaye mu dolli ko si ay cant ak i ngërëm yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem sëriñ bi ne mi ngi sant Cheikh Modou xaa bu baax te du ko ñaanal ci barkeb Cheikh Ibra lii yéeneem ci kër sëñ Touba yal na si def lu kawe njortam ànd ko ak yëpp ah di sant rek sant goo xamante ni gii dafa bàyyi ko ci sëriñ bi jaar ci jëwriñ ji nga xam ne moom la ko sëriñ bi booleeloon muy Serigne Cheikh Mbacke mi toog muy Serigne Abdou Latif mu Serigne Abdou Latif si ndigal lu màgg lii ndigal lu rëy lii nga xam ne dafay mel ne miin nañu ko sax ndax yàgg nañ koo taxaw ànd kook moom waaye ren dafa am lu si dolli ko waat ndax loola mbirum sëñ Tuubaa mu mel noonu teyam ju ne day mel ne day gàccaloo démbam ndax ndigal li kenn ku ne xam na ni ñu ngi ko tàmbaliwoon keroo kero dibéer si jëmbatum garab fekk na booba ndigalul mbale mi booba sëriñ bi amoon na ko ba noppi waaye ndigal loolu njëmbat dolli ko si ba mu dolli ko sëriñ bi daa daal di yaatal ndigal loolu yi sant mbooleem njabootug Cheikh Rafal nu ànd ak sëriñ Cheikh si liggéey boobu ñu fas yéenee jëmbat garab yi ni ko sëriñ bi bëggee ñu defe ko noona ba mu àgg ñu wéyal altine ja si mbale mi noonu ko sëriñ Moutalla waxee njortu nu woon sax ni danañ ko àggal tey jii danoo jàppoon ni xañ na ajjuma la ñuy dem bàq ya waaye pas-pas bii nga xam ne ah, njaboot ji am nañ ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ fekk si liggéey bi nga xam ne ñoom tàmbali woon nañ ko keroog dibeer nekkoon si mooy li ñi Serigne Moutala doon wax mooy li Serigne Saliou doon wax rek ne du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal loolu mooy doxinu moo Cheikh Modou Mountakha tawféex la joo xam ne boole na si ñëpp ni mu leen ko yéenee yemul rek si yéene ko dafa jëfe da koo jëfe ñëpp di si teg seen bët kon sëriñ bi mi ngi sant Cheikh Modou Mountakha cantu gu amul tàmbali waaye amut fu mu yem si liggéey bii mu koy liggéeyloo saa su ne ndax xam na ni Cheikh Rafaal la mu jaayante woon ak sëñ Touba mooy ndigal lu bàyyi koo fi moom bu ñëwee mu jëfe ko sëriñam di Fall di wax ne lépp lu sëriñ Mountakha bëgg bu ak see fi moom fas na yéene jëfe ko ànd ko njabootu Cheikh Rafaal gépp muy tawféex yu yaatu yoo xam ne démb ak bërki démb rek firnde la si ndax sëriñ bi woote waat na ay guddi sikkar ñu tàmbali ko ginnaaw gee mu wax ne ñaari bis la ko bëgg ñu tàmbali ko gee ba benn waxtu ànd kook moom mu toog di ko teewlul boppam xam ne waxal boppam ne dama maroon lool waaye fi mu ne naan naa ba mandi mandiwuma sax waaye guux naa ba guux naa ba doyal kon loolu tawféex la ñu xool mbégte mi si moom la mu jublu nag moo ko xam waaye wér nañu ne tawféexu àddina bépp la yemul rek si Touba yemul rek si murit waaye ñëpp tàbbi nañ si taw ci tawféexam goog yi sëriñ Muntaxa mbégum jaam ni la ku yàlla bind mbég sa mbég la kon nag nu ñaan yàlla sunu borom guddal aw fanam yàlla wéral ay cëram ñaan si doolee Cheikh Rafal yàlla bu ko dara dal yàlla bu ko dara métti yoon wi lim si yéene lépp yàlla na ko def ba def lu kawe njortam barkeb Cheikh ra di sant mboolem kër maam Cheikh Rafal buntu kër yi ñu ko bokkaloon moom sëriñam di Fall ndax ndigal lii lu mu jot ba mu ko yaatalee tàmbalee ko si kër Cheikh mu Moussa jaar si kër maam Saliou Fall ba si kër ba si kër sëñ mi nga xam ne mooy caat mi waaye dem si mboolem buntu kër yi nga xam ne danoo seen Cheikh Rafal dafa gërëmoon seen maam wala mu gërëm seeni wajur wala kook Cheikh Rafal gërëm leen ñooñu ñëpp di si tuddee seex yi ak taalibe yëpp ñi si biir réew mi ak ñu si bitim réew ñoom ñëpp maase nañ ñi teew nañ indi seen doole indi seen xel indi seen alal indi seen jëf dara desu si li leen waroon seen digg ak sëriñ bi lépp mat na sëkk kon sëriñ baa ngi seeree sëriñ Cheikh ne mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall di rakkam yu baax yi di doomam yu baax yi di taalibe yi nga xam ne amuñu lu dul ñoom waaye ñoom it amuñu lu dul sëriñ bi sëriñ baa ngi leen di sant si taxawaay yëpp ndax dara desut mat na sëkk kenn ku ne am nga yéene ju toll ne bu liggéey bi waroon dem fukki fan it la sëriñ Moustapha Fall fëlli lu waxoon rek nun de amuñu soxla si bis amuñu soxla si waxtu moom ndigal li daal mooy suñu yitte fu nu fu nu ko tàmbalee danañ ko tàmbali fu nu wax yem leen fa daan fa yem loolu foofu rek nag la sëriñ bi nekk ak njaboot ji kon mi ngi sant bu baax di wax ni euh, mi ngi ñaan si liggéey bu màgg bii lépp lu si ruuse si tew tawféex yàlla na doon aw fan bu gudd ak wér si Cheikh Modou Mountakha jëwriñam ji waaye si mbooleem njabootuk sëñ Touba gi ak si mbooleem njabootuk Cheikh Rafal gi ak si mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ ñu ànd liggéey bu sell bii ni ñu ko daa ànde ànde ko noonu si liggéey bii ba mu mel nii nga xam noonu la ko sëriñ bi bëggee di sant it Cheikh Modou la Cheikh Modou Bachir mi nga xam ne si moom la liggéey bi jaar ñëw si sëriñ euh, sëriñ Cheikh mi nga xam ne moom la ñu toogal te xam ni moom it jottali leen ay cant moom Cheikh Modou Bachir wax na ne mi ngi sant ñëpp sëriñ Cheikh dina ko jottali mi ngi sant njaboot gépp ni ko sëriñ Fallum sëñ moo demin te waxee sànq ndax moo fi toogaloon mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Rafal gi wax na ni njabootu sëñ Cheikh Fall gi sant nañ bu baax Cheikh Modou Mountakha sant nañ murid yi sant nañ taalibe yi kon ñi ngi ñaan liggéey bi yàlla nañ ko taxaw na gën a déwén si kanamu Cheikh Modou Mountakha ak mboolem njabootu sëñ Touba ak ñi ñu ko àndal ñëpp ak Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam ne noppaluwut toogut euh, boobu ba léegi dalluwut benn yoon day mel ne fu mu wéer mbaggam sax amul jotug def ko ngir yéene ju mu am ak pas bu mu am ak ak si liggéey bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi dénk kon yàlla na la sëriñ bi kattanal ba seen bi bëgg si yow lépp nga man ko yàlla bu la dara dal yàlla bu la dara métti foo bëgg a egg yàlla na fa egg barkeb Cheikh Modou Mountakha barkeb sëriñ Amdi Fall wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi si fii nu daan ñëw di nuyu nuyoo ba daan nuyoo di nuyu ñëpp jullit yëpp fu ñu mën a nekk nuyu taalibe yëpp fu ñu mën nekk di ko jagleel nag waa Touba gi nga xam ne am tafeexi dëkk sëñ Touba am tafeexi yor liggéey bi sëñ Touba bi ñoo ngi leen di nuyu dañ ko daan waxee surtout Cheikh Mahamadou Mountakha muy sëriñ Touba moom la yónni woon ci yéen yéen dafa jaare na ci jaare ci sëriñ Bass am sëñ Abdou Khadir ñoo ngi leen di jot ab nuyoom ak jottam dana leen jot le jottali ay ay kàddoom nañ njëkk ki fi nekkal Cheikh Ibra Fall jox jot ko jox ko ndigal li mu jot ko njabootu Cheikh Ibra yëpp noonu la noonu la ñu defe kon bu ñuy cant ci foofu la ñuy tàmbalee cant sant sëñ Amdi moom sëñ Modou Mbenda mii nga xam ne mooy waajur sëñ daam di kilifaam sëñ daam di doxam di léppam mu jot ci cantam cant cant ko rafet ji waaye nu itam nooy nooy jot li jot sëñ Muntaxa ba jaar ci Cheikh Mamadou Basir jàll ci sëñ Amdi am am fa mu tàmbalee am fa mu yem cant mu jàll ci njabootu Cheikh Ibrahima gépp mi ba nii sëñ bi bëgg ñu defee ko ni ko bëggee woon ànd ko taal bi yëpp ndigal loolu mu daan ñëw ñu ko jottalee ki fi nekkal Cheikh Ibrahima bi dana koy jottali waa yoon yëpp waa dëkk bépp ak dëkk yi aju ci aju bi di Sëriñ Tuubaa fa mel ne Daaru Musti léegi lañ fi jógee fa mel ne Mbàkke Bawol muy Mbàkke Xewar ak Mbusoobe te benn dëkk la muy mbokki njaboot yooyu njaboot Sëriñ Tuubaa boobu yooyu te si seexum sëñ Ismaayila nekk ca bopp ba ñoo nekk fi ne ci bopp njaboot sëñ sëñ Maamor Jaar sëñ Borom Sam ak Mbusoobe ak Mesere ak njabootam noonu la nag dañ ko tàmm tàmmale ci dëkk yi wattuwaay yëpp dañ ko santoon ñu dellee ci bi dëkk bi itam noonu ko sante waxee taali Cheikh yi Sëñ Tuubaa yëpp kenn desut wala waxoon ci woote ba ne Cheikh xam ne ca cër bi Sëñ am am daa jiitu ca bopp ba ndax Cheikh Ibra moo jiitu woon ci lépp wane woon ni se ni ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa maanaam ci jiitu ci liggéey ba waaye ñi fa fekkoon ñëpp dañoo toppoon ci gannaawam ñu ànd liggéey ba léegi sëñ sëñ Daaru Asan sëñ sëñ sëñ sëñ Masamba Jóob Sàmm sëñ Sar Njaañ noonu la jàlle woon ba ci ba ci sëñ Ijaar Sekk ba ci sëñ Basila ba ci ja noonu la jàlle woon ca waa Ceyeen sëñ Mor Xari ak jàlle woon ci seex yëpp noonu la ñu ko waxee woon ci woote ba ñëpp la ñu woo ñëpp la ñuy wax liggéey bi sëriñ bi ndax bi liggéey bi sëriñ bi ñëpp ko war a seq waaye seex yi ñoo ci raw ñu ko sëriñ Mortala si waxee léegi waaye ñëpp wuyu noonu lañ sante woon itam ñi nga xam ne ñoo jiite kuréel yi te mën nañ saa njëkk wax Hizbut Tarqiyyah nga xam ne barab bii nu toog di jarte gi ñoo ko def seen barab la may këru xasida gi yéen sëñ bi defloo ngeen ñu xam ne adduna sépp mosu ci am kër kër gu ñu jagleel xasida yi mu mel nii mu ay milliards dem ci noonu nii nag ñaa la waxe woon liggéey bi kat mu ñu ci masaan dugg liñ ci njëkk a def ci yéen lay jógee te la ko defaat ren jii mbala ca réunion bu njëkk wa lañ def ca réunion ba lépp sëñ Youssou ma ko joxe ci tur Hizbut Tarqiyyah gépp joxe waal leen ko ma ne ko lii suñ jiglaayee ak la loolu leer la leen ci ba liggéey bi mu mes mel lu mës mel ci yomb ci yaatu ci barkeel kon ñu ngi leen di sant bu baax noonu itam lañ sant woon chef de zone yi sant kuréel daayira yi sant yi jiite mboolo yi ci dëkk bi mbool yëpp sant maire yi fam naan féete mu féete fa kuréel yi ñoom ñëpp kenn ko nekk ak taxaw nga ca sa kilifa ñëw na mbaa ndawam ñëw ba ci kuréel yi nga xam ne ñoo jiite dëkk bi garage garage yeeg sareet yeeg ñëpp ñoo nañ biñ ñu chef de zone yi ne lañ taxawee takku ànd ak seen zone kenn ku nekk sab zone ñi ci ne ci ay kilifa nga nga soññu leen ñoo ànd ñëw liggéey bi ndax loolu buñ ko waxee dañ ciy jublu ne seex sëpp seex bu ne xam nañ ne gis nañ la yaa sa mbooloo ngeen ànd na ko wax am na ku ko waxoon benn daje ne àll am na dañ ko beral loxo ci liggéey bi ma ne ma ne ko yàlla dafa dogal jëm dëggal soññi leen muy kilifa yi te boroomi taxawaay kon bu leen soññee dañuy ak seen taxawaay dañ ñëpp dañoo xam waaye ñëpp am yenn yooyu ñëpp am taxawaay boobu ndax waa kër sëñ sëñ Daaru Asan dem la demoon yeewu ji leen te jii laa doon war a yeewi waa waa kër sëñ sëñ Madiba Sylla waa kër sëñ ñoo nekk ci bu àll ñaan waaye zone yi des itam kilifa yëpp kenn ku nekk dañoo bëggoon moom bu demee nam daan neme ñu woote ci ngir Seex Bas ñëw yeeyu yàlla moo doxal ab taw ñëw ba mënuñu ko ñu jotal ñu it dañu jéem a dellu kilifa yi kenn ku ne ko wutaloon ak bar goo xam ne fa lay ngir en ah, ah, liggéey booba ñoo ñoom moo tax mënuñu woon a ñëw mënu nit mënu faa dem ndax taw bi waaye ñu ñëpp yàlla gis na leen yonent bi gis leen Sëriñ Tuubaa gis leen Cheikh Mamadou Mountakha gis leen kon kenn ku nekk fa nga nekkoon dafa yëngatu na nga xam ne da nga doon yëngatu ñu ko war a ñëpp gis ñu ko war a gis ñëpp gis nañu ko te la ñu war a fay lépp dinañ ko fay la ñu waxoon ne sëñ Saar da ko wax am ko doon wax ne ko ñaan ma bokk ci milliardaire yi sëñ Tuubaa yi mu ne ko li am solo mooy ñaan ñaan sëñ Tuubaa liggéey loola sëñ Tuubaa comme liggéey loo daan la jox jumtukaay ju liggéey kon nag sant yàlla rek lañ def ci biir cant googu cantuk Cheikh lay jottali Cheikh Bass dana def liggéey ba noppi mu ñëw nu daje fa jawriñ Cheikh Ibrahima Fall ja mu jottali fa cantuk sëñ bi ak cantuk boppam tey ji dana mujj fii ci daara ji di ko seetal fi la ñu fi ci léegi lay wax ne ci six heures la jógee këram di ñëw embouteillage bi téye ko bi mu ñëwee jege muy taw ba fal yëpp ci biir sëñ nekkoon ak murit yëpp ak ñi liggéey ñëpp biñu demee ba taw bari sëñ Fallu mu sëñ Moodu Aminta ci turu Baay Faal mu yewi tali bi yëpp waaye biñ doolee ci génn dañ tase saaba ci buntu wi saaba si egsi bëggoon naa egsi ba toog jot lewat cant gi waaye ñu xamal ko ne ko ginnaaw mi ngi taw ba fi mu ne sewetut te jullee woo tamit tamit jàll na te noo ngi tawoon di ko nekk ci julli ma joxe ndigal ne naa jottali ak cantam mu jotee cantum sëñ Muntaxa jote cantam moom cant gi tàmbali sëñ am di moo du menda jaar ci ñëpp bokk ku gën a ndawee koo xam ne mën na yenu yaru ak bale wala mën a yaru gopp wala ab radu ñi seq liggéey ba mel nii sant ñëpp sant gi nag man mi ñu woon liggéey bi te ma doon wax ne nan ko def yónni nan ko wax da ko war a njëkk ko waxee ànd ko ñëpp nu tëral ko ñu teg ko ci yoon wa mel na nu mën sa mel bett na lool ndax mi ngi tàmbalee ci déwén ji ñu ko doon tàmbale te déwén ji ni ko sëñ na ko léegi garab yi ñoo ko jëmbat loo Baay Faal yi Baay Faal yi liggéey bi mën noo tàggoo ci liggéey bi kon kay li ma def mooy bokk liggéey bi bokk bokk tàmbali ci déwén bu ñu ko tàmbalee déwén ñoom ñu dem jëmati garab ñu ne ci mbale mi yi noppee ñu ñëw fekk na ci mbale ndax xamoon nañu ne sabar bi daan fekk ci liggéey bi kon te am na ko wax ci wax waxtaan yi sëñ Moustapha Mbaye wax na ko sabar sax dëgg la ci la joxoon ndigal li waaye li am solo mooy ndigal bu sëñ Tuubaa fu mu la fekk nga xam ne tey la nga xam ne lii mooy waxtu wi jógal nekk ci rek loolu lañ defoon ba dibe ji ñu tàmmali ko boole nga jëmbali ak mbale mi bañ dibe bañ liggéeyee ak altine talaata sabar teru ñu nekk ca laata ak ba tey def nañ li ñaan def lépp def nañ ko ba dem mbàqee ba dem ci barab yi nga xam ne dañ ko soxla mu set fu ci mel ne barab yi nga xam ay gan dafay dal ba ci ay école yi ñu abbu ngir police yi dal fa loolu moo tax nu mujjee fii di ci daara ji ngir mu set moom itam fépp set na fépp àgg na te liggéey bi dafa yéwéne noo xam ne yombe noo xam ne waaye fa noo xam ne ci ñun ñu ko doon soññee ak di ko jiite mën na wax ne mustaam kon nag sant nañ cant gu wér te man mi ñu yónni woon ndigal li ngeen ma jottali ko taalibe yi ngeen ñu waajal liggéey bi te maandi ko ñoom wax dëgg yàlla gis naa ci lu kawe rafet na sotti na mat na kon nag jërëjëf jërëjëf ñëpp jërëjëf ñëpp sant nañ ñëpp sant nañ ñëpp di ñaanal ñëpp nag barkeb Sëriñ Tuubaa barkeb Seex Muntaxa mi nuy liggéey loo suñu borom faj aju bindeef yëpp mm-hmm. faj aju taalibe yëpp mm-hmm. faj aju waa dëkk bi yëpp mm-hmm. li nga xam ne moom la kii liggéey soxla su borom defal na ko mooy gudd fan ak wér ak kattan ak man-man ak xéewal gun liggéeyee ñu defal na ko lépp nu delloo ko ci sëriñ sant nañ ñëpp lañ man lépp def nañ ko waaye daañu mari mag ñi naa dañoo xam ne sëñ bi kenn du wàcc wàcce kaw murid yi bu leen sant sëñ bi ñu def wàcce nañ waaye sëñ bi kenn wàcc wàcc wàcce ko bu ñu wàcc boo nit ñu ko wàcc ndax sëñ bi sëñ Abdoulaye waxoon na lu leer buñ ko ko lebal ko defal loo man mu fa el loo ker mu fa guddi kon kay sëñ bi moom am nañ koy te lim sawar mooy ku ko liggéeyal ba mu fay la ndax liggéeyal na boromam ba jo jox ko lépp mu téye ko te bi ne fi dong la ko moo tax ñu mu liggéeyal liggéey bi moom la koy doyee itam kon nag ku am tawfeex ñu liggéeyal sëñ bi am nga tawfeex am nga tawfeex am nga tawfeex am nga tawfeex ndax ku ko liggéeyal mu fay la kon nag sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ñoo ngi wax ne nan yal nañ ko fekke fekkewaat fekkewaat di ko fekkee sëriñ Muntaxa di ko jiite sëriñ Mbas dina jox ndigal li sëriñ am di ko di joxaat ndigal la noonu noo ànd ñëpp ñu ko àndaloon loolu ci yéene def ko ci ba nu ko sëñ mbëggee mu defee ko nag kon ñoo ngi sant ñëpp jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu na waaye taalal ñaanal ñi